jërëjëf Gora moom tamit moo njëkk a raw li nga xamante ni mooy grand prix de la renaissance africaine en 2011 fële ca hippodrome Ndiamou Codou Diop mu waroon fas bi nga xamante ni moom mooy taal bu yàlla taal bu Ablaye Dia loolu tamit c'est du écurie réew mi xam naa ne du yàgg dara si kanam dinañ si ñëw

de l'intégration. Voilà, donc les 11 chevaux au départ. Hein. Dans quelques instants, nous allons assister à ce départ des pour ce qui promet d'être euh, riche en spectacle. Hein, parce que tout le monde sait que le galop des pur est différent du galop des chevaux locaux. Donc euh, voilà, le spectacle est promis. Tidoy mu nekk journée boo xamante ni c'est une journée très très très c'est top c'est partir 1658 à parcourir

Gora Big Bill dem na mais boo xoolee euh, fasu mal yi ñaar ñaar ñëwandoo nañ dalandoo ci kawam euh, nga xool ki nga xamante ni moom mooy Big Bill ki ko war moom mooy Mohamed Gadiaga suivi des chevaux maliens ñoo ñëw en deuxième troisième ak li nga xamante ni mooy quatrième position Tawhid Lo mu ngi toog li nga xamante ni moom mooy en cinquième position waaye ki nga xamante ne mooy Émilie Koulou ñëw na waaye ba tey ki nga xamante ne moo génn moom mooy le numéro 6 nekk bi attention parce que bi nga xamante ne mooy statisticienne mu ngi sàkk di jaar ci li nga xamante ni moom mooy ligne bi moom nag ki nga xamante ne moom moo ko war moom mooy Ngagne Demba Dieng suivi de Big Bit en troisième position nekk fas bi nga xamante ne mooy Tawhid Lo en quatrième position nekk fas bi nga xamante ne moom mooy euh, Cheikh Gueye Gora Thiam mais ba tey Cheikh ki nga xamante ne moo génn mooy Big Bit Gora Big Bit génn na Big Bit bëri na maam ngañ waaye tawxiit eh, eh, tawxiit ñëw ni ko nañ dem waaye ki nga xamante ne nii moo génn moom mooy big bit waaye tawxiit tey jii dafa mel ni xel wi xaw na ko réer trop moo tax gis nga ma mu ngi ñëw en deuxième position fële ci arrangé ki nga xamante ni moo ñëw en deuxième position ñu édition ñu édition tey jii dafa mel ni écrit fan ma ñoo naa triomphé ci li nga xamante ni nii moom mooy catégorie pur yi mais léegi ñu édition euh, génn na carrément maam waaw ah, new édition ñëw na li nga xamante ni moom mooy ci kanam mu bàyyeekoo équipe Fane of Maître Moussa Mbacké suivi de Big Bit en troisième position nekk fas bi nga xamante ni moom mooy Tawhid de new édition joxe na li nga xamante ni moom mooy distance bu gudd new édition mi moo doon ki nga xamante ni moom mooy MPS bu Maître Moussa Mbacké new édition bi moo doon ki nga xamante ni moom mooy Vénuti waaye new édition moo doon ki nga xamante ni moom mooy Cameroun bu Maître Moussa Mbacké mu ngi nii di ñëw ci li nga xamante ni moom mooy 200 mètres bi ki nga xamante ni moom moo ko war moom mooy euh, Papa Djibi Diop en deuxième position Ener Love troisième position Nek nga Mon moyen, moy ki nga xamante ni moom mooy li édi euh, moom mooy big big quatrième position nekk li nga xamante ni moom mooy le numéro huit nekk bu les malien ki nga xamante ni nag moom moo raw moom mooy new édition bu maître Moussa Mbacké takkoon li nga xamante ni moom mooy le numéro sept suivi de Tawfik Bo en troisième position nekk fas bi nga xamante ni moom mooy euh, euh, moom mooy big big quatrième nekk ki nga xamante ni moom mooy le numéro huit nekk fas bi nga xamante ni moom mooy jimbi góoro kon bo xolé ñi nga xamanteni mom moy malien yi ñoo nañ andi seen bop ci xaas wi mu ngi nonu mam ngañ faas yi nga xamanteni ni mom mo raw mom doomu zarak la zarak nak dubai moko jur dibay mi la ñom sikin ze goldu wa yaayam limited edition mooy mooy doom ki nga xamante ne nii mooy Ken d'Argent soo nee Ken d'Argent nag sa xel dem te fi nga xamante ne nii mooy Mira bu professeur Sakhir Thiam ndax lan moo ko waral ndax Rivendor moo ko juróon Rivendor Ken d'Argent moo ko jur waaye soo nee Ken d'Argent sa xel dem ci ki nga xamante ni nii moom mooy euh, trois ans bi nga xamante ne mooy jóge écurie Lamba Faar di daw si muy Jamra moom tamit euh, euh, papam doomu Ken d'Argent la ñu koy Kenakoros tey jii laay ndoy gis nga ko Euh, maître Moussa Mbaké, il a encore montré ses preuves ses preuves. ay a ñamul ses rek ndax ay preuve so né Teranga ses doomu Gansiri ay fasam lañ raw kon nek na preuves. Il ni am am solo la parce que mom ay victoire am ko fi ni. nga Il ni Sénégal.